waa ay ca kii nag mooy bugaan sooy sooy sooy ku mën a tooñ nga sooy yow moomu nekk wal fajri saa njoogu yow tamit ku mën a tooñ nga ba pare sa wax ji doo ko argumenté yaa ngi dégg gis nga wax soo koy wax dangay dangay da wax ji am foo ko teg su su wax joo xam ne mën naa yàqam réew parce que Ousmane Sonko Barthélemy Diaz Khalifa Sall Karim Wade ba ci Bougane mii ba ci ku gën ndaw programme ñun ñun ñoom ñëpp lañu ñu yemale kenn ku si nekk li ngay défendre na arranger réew mi rek ñun kooku lañ faral ñun faral ñun personne ki ñu faral mooy ki yor programme Bougane yor na programme am c'est bon yor na programme am c'est bon Barthélémy Dias programme Khalifa Sall programme Malick Gakou programme Ahmed Aïdara programme am keneen ak keneen programme am parce que tey sooy seet élection yi ñi nga xam ni ñoo gañ a gox-goxaat yi kenn mënu kenn mësul foog ni ñoom dinañ ñëw gañe ko te ñëw nañ gañe li ko doy mooy demal boppam mais bàyyi leen ko mu demal boppam luy ndey génn jël vocalam di teg ku ne di teg di wax mais bu mais bu fekkee saaga ndey rek la mais saagakatu ndey yaa ngi si dëkk bi ni xas am na kilifa yu mag yoo xam ne assemblée nationale lañ taxaw saagay ndey est-ce que débat ngeen ci lool gis nañ suñu maam Moustapha Niasse taxaw assemblée nationale saaga fa Malick Gakou est-ce que débat ngeen ci gis nañ itam Moustapha Cissé Lo taxaw assemblée nationale ah, saaga ndey ñiy saaga ndey duñ jeex te booy seet léegi Sénégal déggee tuñ ci teggin ci saaga ndey lañuy ñuy saagakatu nday yi ñu ngi ci dëkk bi ni xas saagakatu ndey yi moom la ñuy invité léegi saagakatu ndey yi la ñuy déglu saagakatu ndey yi dafa mel ni ñoom ñooy lépp ñoom ñooy lépp léegi nag ngeen jël benn vocal fu ne ngeen lëmb-lëmbee jom fa gis nga opposition bi dañ leen a war di bu ñu gisee buggaan dem keneen ak keneen dem am nañ ñun pour naxtaan Bougane ba mu ñëw àndaat ak Sonko ñu liggéey parce que Bougane mi am na temps mu porte ci xeex bi parce que moo ubbi woon teleem Sonko di fa wax Sonko di fa wax man moom laa ko jàppee woon ba léegi ñi nga xam ne nii nag dañoo wër Sonko ñun ndaw ndawaan suq suqaan yi nga xam ne amuñu xam-xam nañuy bàyyi Ousmane Sonko mu doxal suñu programme mais ñun nañ seet kan mooy doxal ba pare bu boo toogee ne pouvoir nga contre yow ngay opposition keneen di opposition ngeen nekk fa di xuloo kañ ngeen di déjjati pouvoir booba kañ ngeen koy déjjati kan ngeen koy déjjati dafa am ay wax yoo xam ne jarul di publier chaque jour ma wax leen ko su su télé yi ay saagaak yooyu secret biir ne ku ko indi ci penc yaay fenkat bi fa mu doon saagaa fekkee woo ko mais nga jël ko